asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 25 septembre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record la ba ci fii nga xam ne nii day moo di Leewtoo TV fu ci nekk rek tey am na ba ñu xëyee loo xam ne gis nañ ko fa bu ñu ci yëglikaay bii di sunu làmb la moom ka ñu fa xëy gis mooy ki njëkk a nekk Tigre de Fass di Mbaye Gueye Mbaye Gueye nag li mu xëy di wax lenn la diggante Balla ak Eumeu Sène bi nga xam ne fan yi moo di coow ci dëkk bi daal ci la xëy moom itam indi ca xalaatam wala kàddoom nee na li leer ba leer day ñoom ñaar seen diggante muy Balla muy Eumeu Sène nee na seenum combat moom fi mu nekk nii wala seen bëre moytu ko mënta nekk faw moom ñu laale loolu mooy waxi Mbaye Gueye nee na nag fi mu nekk nii daal Balla Gaye numéro 2 moom bu fekkente ne daal bëgg naa laal Modou Lo wala mu yegg ca moom day daa mel ni kon jàmmaaru Eumeu bi du mën a ñàkk leneen loo xam ne tamit wax na ko ne na Balla Gaye nag jamono ji ñu toll nii moom daan ko lu jafe-jafe-jafe la mbay gi mooy wax ba tey nee na daan bàll day jafe na lool ci guddi yi nga xam ne ci la ñu nekk leneen loo xam ne moom daa jàpp ne jaadu na te des koo war a tëgg mu di boo xam ne bu neex la mooy diggante Gris Bordeaux ak de Guiers numéro 2 père mbay gi nee na làmb la jaadu na te itam nag des ko sax war a tëgg ñoom ñaar ñu laalee dal di bëre waaye ka nga xam ne nii moom moo di Lac de Guiers numéro mel ni ki nag yëglikaay bi itam am na seetlu mu def ci moom de maanaam daal ay mbiram fi mu nekk nii boo bëggee dégg dëgg moom bu doon ay furus la wala lu mu ci mën a doon daal daa mel ni kon foofu fi mu nekk nii daa vert wan ko lu vert maanaam daal ndax nag yëg dikaay bi ne na li waral loolu mooy ndam la nga xam ne am na ko ca kaw Boy Niang jóge ca ñuy démarché li nga xam ne moo di kombaam ak Gris Bordeaux mel ni ki nag lak fi mu nekk nii kon daal fi mu taxaw daa mel ni daal baax na lool lool yëglikaay bi moo xëy ñëw di ñu ko wax ñi nga xam ne moom fa ñu taxaw baax na mooy waa jàmm gën si ka mbaaw mu mel ni ki nag seen écrit boobu day fi nekk nii moom boo bëggee dégg ah def nañ saison bu baax a baax de yëglikaay bi ñu suñu làmb xëy tey ñëw wax ñu ko seize combats la ñu am am ca onze victoire ak li nga xam ne moo di cinq défaites suñu làmb xëy ñëw wax wax ñu ko mu mel ni ki nag xale fa nekk daal ñu ngay wane seen bopp bu baax a baax a baax a baax moo tax yëglikaay bi ne jàmm gën sikaam mbaaw day marqué nañu ay point yu baax a baax ne jàppal danañ tamit juróom-ñetti promoteur ñoo leen jot a engagé ci saison bi nga xam ne moom la ñu génne ki nga xam ne nag moo di jàmm doomu jàmm gën moom mooy grande satisfaction ba maam daal moom ñëpp bëgg nañ ca moom wala boog am nañ ca moom xel mu dal Liss Ndiago moom boo bëggee dégg dëgg saison dafa saful suukar saful xorom ndax nag yëglikaay bi ne na dafa daan ñu daan ko waaye doon na xale boo xam ne tamit day xale la boo xam ne ames na ci moom yaakaar bu baax a baax Félix nag ma nga xam ne mooy leader ba moom ñoom itam ñëw na daal li nga xam ne moom lañ ko doon xaare mu def ko grand combat ba mu amoon da caa daan ki nga xam ne mooy Pape bu xees ba nekk fi nga xam ne moo di écurie waaye mbay xaada itam la dal Félix moo ko dal moom mbay xaada dafa daan ñëwaat ñu daan ko yëglikaay bi moo xëy ñu wax ñu lu mel ni ki noonu mbay xaada lool daal la def Sidi jàmm gën moom tamit gisee su ko mu bëree moo ki nga xam ne moo di pël ñoom boo bëggee dëgg-dëgg saison ba ñoom bokkuñu ca waaye béton armé ak ki nga xam ne moo di océan su gaynde ak ki nga xam ne mooy doomu jolof tafaatin numéro 2 ak ki nga xam ne mooy booy susu ñoom itam day wane nañ seen bopp bu baax a baax waaye ki nga xam ne nag moo di sarko 2 ak ki nga xam ne moo di caw caw bi nga xam ne day mooy caw Karbala ak mbës ñoom nag daal déception wala boog seeni mbir daal doxut ca écrit ba yëglikaay bi moo xëy wax ñu ko ki nga xam ne nag moom mooy président écrit ba di Ndig Fall moom moom jàpp na ne donte yëglikaay bi daa gis na bilan ba baax na waaye moom nag nee na daal dese naa am satisfaction cent daal bu sañoon am lu gën a gën loolu ñii moom bés ci waxul daa mel ni de seen diggante fi nekk ni day ah mu nga bëgg a tàng de wala boog ay tàkk-tàkk mu ngi fay waaj a jib muy diggante ñi nga xam ne moo di waa yoof mbooloo ak ñi nga xam ne nii day ñoom ñoo di waa yoof mu mel ni daal fu mu nekk nii ah ay tàng-tàng wala ñàkk déggoo ndax doxu seen diggante moo tax yéeg likaay bu xëy woon ñu mujj ak ki nga xam ne moo di caatu yoof yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu lu noonu jamono jooju nag moom promoteur yi daa mel ni nag ñu nga ca ay combat di ko dox ak lijjantee ko tëgg ay combat espoir yoo xam ne day taxaw na ka ca njëkk moo di idaal yi ñu ngi mi nga xam ne nag moo jiite ñu ngi production ba am yëglikaay bi ne nag taxawal na diggante kii nga xam ne nii moom moo di ceeli ba nga xam ne moo nekk Dakar Plateau ak agogo ba nekk école di sàkku xam-xam ba ca parcelle ca Birahim Ndiaye waaye itam ka nga xam ne moo di sëñ Modou Niang moom itam taxawal na combat espoir diggante Fatick la ak kii nga xam ne moo di Boy Sine mu mel ni ki daal fi mu nekk nii kon lamb sam lamb jooju làmb jo tamit day ubbeegul waaye promoteur yi mu ngay taxawal ay combat waaye leen loo xam ne itam mu nga bu fekkee ñu ngay taxawal ay combat ñoom promoteur li leer ba leer de daa mel ni daal yëglikaay bi itam mu ñuy wax ne saison bu mu jëm de boo sàgg nee avance mu nga xam ne moo doon am ca làmb ji minute yañ leen joxoon daal boo sàgganee dees na ko wàññi ba mu wàññeeku yëglikaay bi ni suñu làmb xëy ñëw di ñu ko wax waaye nga xam ne nag moo di ca Leewtoo TV foofa la ñu fay fekk Père Bekaay comme niñ koy wooye daal la mu xam ne daal ne na li leer ba leer day ki nga xam ne moo di Eumeu Sène moom dafa jàpp ne daa jum ca la mu wax ne dootul bëre ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène waaye yemu ca am na leen loo xam ne wax na ko mbur mbur yi nga xam ne fay nañ leen ay kase jàpp na ne daal fi mu nekk nii jamono place yi na ñu ko jël waxul kenn nag na jël lu la waaye moom daal daa gis ne fi nekk nii kon kuñ ci fay yenn prix yi daal war ngaa mën a sëgg bëree Ama itam wax na ci moom ci erreur bi nga xam ne def na ko daaw ci kase bañ ko fayoon toll ci soixante-dix millions te mu bañ ko père daa jàpp ni loolu moom erreur tamit gënu ko rëy waaye record fa la dem yëglikaay ba nag la mu ñu xëy woon daal Kaolack la dem Kaolack nag daa mel ni Biraseen ba moom fi mu nekk nii wàcce ko la gaa yi la ko waral nag lenn la lañ jàpp ne daal yorin wa ca CRC bu Kaolack ba dafa jaarul ci aw yoon rawatina nag ay mbiri xaalis waaye booba itam bira tontu na leen de nee na li leer ba leer day fii moom mbirum trésorier wala mbirum koppar mosu fee am ñoom kay ñooy dox di wax nañu continuer di wax waaye loo ci mënti dégg daal moom lu mu mën a doon bu la dénkee ak loo ci mënti xam la ca gën daal mooy di ko waxtaane ak ñu ko séqal donte ga nag convaincre ñëpp moom mante ne ci àddina ndax nag ku nekk ak sa gis-gis waaye yow ma ñu dénk moom fexeel bala ngay def nga teg ko ci yoon te yàlla kese tax ndax nag am yàlla yàllaay buur waaye ñàkk yàlla itam yàllaay buur te yàlla sax kenn du ko ñàkk nag ndax moo fi nekk ilaa ajalan musaman tey ak démb ak suba ak ginnaaw suba yàgg maar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 jàng revue bi nag euh, dañ si dem ak sunu lamb record Leewtoo TV ak Leewtoo point nag nu commencé ak euh, sunu lamb sunu lamb tey nag moom dafa euh, sekk waxtaan ak kii nga xam ni mooy le premier tigre de Fass mbay Guèye Mbaye Guèye tamit mi ngi ñëwaat si combat bi nga xam ni fan yëpp ni ngi koy laam-laamee si diggante Eumeu Sène ak kii di xam ne mooy Balla Gaye nee daal moom li nga xam ne moom la jàpp mooy troisième combat foog mu am si diggante ñaari mbër yooyu Babacar. maanaam Père Mbaye Guèye moom moo xëy tey wax loolu ñu koy nuyu di ko ziar. di ko ñaanal fan ak wér yaram waaye di ko ñaanal bépp doomu bu nekk si kaw suuf rek ah moom nag euh, joxe na xalaatam jàpp na ne ñoom ñaar mënuñoo bañ a bëriwaat pour ñetteelu combat waaw loolu war na mën a nekk bu fekkente ne dañu teg mbir mi si cadre sport ak cadre làmb yaakaar naa war nañu mën a bëriwaat parce que loolu mooy làmb mbër di nga moom ñaar ba ñetti yoon ba sax ñeenti yoon day am te tey ak données yi ni mu demee nii yaakaar naa combat Eumeu ak doo wax dara daal dina neex trop trop si ahlu làmb mais dina neex tamit si amateuru làmb yi parce que boo xoolee ku mel ni Bombardier bëri na ak Yékini ñetti yoon Yékini bëri na ak ak yeneen combat yoon yooyu yëpp da koy gis kon tey yaakaar naa loolu mbay gi wax war na mën a nekk waaye nag li ma si jaaxal rek

waaw parce que nee na Balla fi mu nekk nii daan ko moom du lu yomb waaw non Balla moom daan ko yombul ci làmb boo bëggee dégg dëgg rek waaw daan ko yombul ci làmb parce que li tax mooy bu dee si côté bëre la yàlla dimbali na ko man na ko te itam buy ñëw si làmb dina indi doole te loolu defe naa loolu la ñu soxla si mbër te itam amul maanaam doone ragal la loolu itam mënoo ko wax yooyu nag bu nekkee ci yow boo amee fit macha allah am doole mën a bëre defe naa lool moom bu nekkee ci yow daan la day jafe waaye nag ki nga xam ne nii moom la ñuy wax pour ñu bëriwaat tey da koo daanoon loolu tam dafa jar a xel ndax lu ba lu lu lu mën a xew rek ak bu Balla mënee bëreeg lu mën a xew it Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon ki la daan ñaari yoon nag xaw ma kan moomul ci yow pexe mais daa mel ni kon moom am na ci moom pexe waaye nag troisième combat ba. mën na indi leneen ndax gis nañ ko ci diggante Zos ak Guy yi naa ñaar yoon yu ñu jë jëkk a bëri Zos koo daan mais ñetteelu guy gi dafa am ci moom ndam maanaam dóor ko mu daan loolu nag mm, tamit mën naa nekk waaye mën ngeen a ñëw tamit di gën a leeral mu daanat la tout est possible parce que Eumeu Sène itam ndaanaanal bërekat la bëre pire lay def. xam nga ni bête noire dafa am ci làmb Babacar. bien sûr sport yëpp am bête noire loolu day am bête noire dafa am ci sport sport en général moom mel noonu am na. da nga koy gis si football di ko gis si lamb karaté volleyball basket ak yëpp am na da ngay gis des fois équipe yu ndaw yoo xam ne saa yu ñu jongante ak équipe bu mag dang da nga gis dañ dañ leen di sonal di leen gagné loolu nag ci sport yëpp la am te diggante Balla ak Eumeu bëri nañ ñaari yoon vraiment li leer mooy Eumeu daan ko te Eumeu daanu ko ci danga naan ah, lu mu for wala nanga mais ci pire bëri la koy daane parce que Eumeu yàlla moo ko may dafa mën a bëre moom tamit Babacar euh, premier tigre de Fass mi wax ci journal bi diggante combat ki nga xam ne mooy Balla Gaye ak Lac de Guiers xëy na bu ñu fekkoon ni euh, ci saison yooyu nu génn Mbaye Guèye joxewul woon euh, autorisation pour Gris Bordeaux bëre ak Lac de Guiers 2 mais mais ci journal dafa mel ni léegi d'accord na nee na il dit ok maanaam d'accord na pour bëre boobu mën a am diggante ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak Lac de waaw loolu war na mën a nekk ah Gris ak euh, Lac de Guiers numéro un même xëy na jamono ñu doon wax sa waruñu bëri sax pour man waroon nañu mën a bëri xëy na nag làmb ku nekk am nga droit def sa choix yow mi yore sa a nekk staff bi di ko encadrer mais tey nag gis nañ que ni fi mu nekk nii combat boobu promoteurs yi bëgg nañ ko diggante Gris ak Lac yaa ngi dégg lagit donte que dégg nañ ko sax mu ne Modou Lo mooy premier choix mais itam bañul Gris parce que niñ déggee koo def deuxième choix itam bëgg nga bëre ak moom ça veut que kon fi mu nekk nii loolu Mbaye Gueye wax itam yaakaar naa waa lamb yëpp d'accord nañ ci diggante Gris ak Lac moom fi mu nekk nii sénégalais yi rawatina amateuru lamb yi na mën nañu gis seenu jànk jàkkaarloo seenu tàkk waaw waaw rawatina la parce que ay xeexkat lañu dañ ne ñoom ñaar bokk nañ ci mbir yi dax xeex ci làmb ji te itam ku ci ne encadrement bu mag nga yor muy écrit waalo ak Fass yaakaar na yàgg na ñoom ay saan kon defe naa ne tey bu ñu jëlaatee ñoo xam ne tey ñoo yor seen flambeau écrit bu ñu leen boole actuellement xalaat naa bu ñu yeggee kere ca jàkkaarloo ba di gis combat bu neex a neex Babacar su fekkee dañuy wax ne que instant bi nii Modou Lo moom mooy roi des arènes moom moomee vent ki nga xam tamit Lac de Guiers tamit mën nañ jàpp ni moom moomee vent ndax journal bi nee na ki nga xam ne mooy Lac de Guiers 2 bu mu daanee Boy Niang li ngi am yaakaar ni Modou Lo dina ko jël pour bëreeg moom maanaam daal temps yi daal Lac de Guiers moo ak comme ni ko xale di waxee waaw maanaam daal fëy moom bu tàkkee bu doon day daa tàkk rouge moom fëam fi mu ne vert la tàkk am na mu ngay dem day kenn téewu ko parce que am na ndam si Lac ñu ngi ñu ngi wax mook Modou Lo ñu ngi koy proposé Gris waaw loolu nag mooy sport ah. des fois day xaw a naqari ci yow mais des fois tamit mu neex trop trop trop ci yow kon actuellement xëy na fi mu nekk nii mën nañ ne moom si côté macha allah ndax jóge na si ndam tey ñu ngi koy proposé ay combat yoo xam ne ni fi mu nekk nii xëy na yaakaar na ne dina ko war a mën a bëri te yaakaar naa dana ko bëri loolu nag mooy sport sport moom boo si nekkee li man daal li may bañ si sportif mooy nga ñëw ah le sursis ñëw indiwuloo dara. mais kantaan nag ñëw nekk oo topp def li nga war a def ah boo amee ndam baax na soo mat si nii baax na boo ñàkkee tamit xam ne sport loolu mooy ay luwaam mais loo ci mën a dégg daal Lac kon fi mu nekk nii moom ah mu ngi comme ni nga waxee rek waaw mu ngi kii daal mu ngi dox di dem nu mu ko neexee daal actuellement kon waaw. Babacar su fekkee ni côté yoo Fass ak ak yoo wàll ñoom seen ay mbir mi ngi neex. fi nga xam ni neexul daal mooy euh, fi nga xam ni mooy yoof entre écurie yoof ak écurie yoof mbooloo foofu daal nañu le torchon bleu maanaam neexootuñu daal parce que ki nga xam ni moo nekk écurie yoof ku ñuy wax Babacar dañ ko invité woon si benn télévision muy wax si bilan wu écurie mbooloo écurie euh, yoof mbooloo nag génn ni nag di di wax di ko araftu ne ko pour na bàyyi li muy def su loolu daal ñoom ñoom ah dañ ko di jënd seen bopp Babacar waaw loolu day waaw yaakaar naa bu ne yoof na yoof mbooloo ci écurie xanaa ci wàllum làmb mën nañ ne pour kii naa écrit bi kii na écrit bi waaye man si li ma xam wala ma jotoon ko gëstu mooy dafa mel ni que ñoom dañ ne woon sa boole nañ écrit yi mu nekk benn écrit yaa ngi dégg loo ci mënti dégg nag Babacar boobu man xam naa ko mais li am solo daal mooy que ni ñoom ñoo bokk yoof mbër ya pour man ñoo bokk ndey ak ndax ci li ma xam mooy dañuy faral di jàppalante ci ay contact yooyu kon defe naa ne ñu jéem a def seen écrit boobu benn écrit ànd liggéey bokk ndey bokk bàyyi défendre seen couleur dëkk muy yoof defe naa moo ëpp solo xëccoo beek kii ne man a kii ne man a yooyu du yóbbu mbir dara du yóbbu fenn dara parce que coow lu bëri moom wala xëccoo wala man laak du man ak du yow ak yooyu coow lay indi rek kenn parce que koo ne du yow mu ne du yow ngeen ne fa di werante jëmale suba kon nag lii tax yow ñu xam ne yow la dangay ngay nangul sa morom la mu doon waaw nit ki moom olof a ko wax nangu jël na ciru bañ bu ku ci ne lee sa morom li ne ci yow ci moom ci ay qualité ak ay baax baax ak yu mel ni ki noonu dana tax yow itam sa cir nga mën koo jot bu baax a baax kon lañ leen di wax rek muy mbër ya fa nekk muy mooy Malick Ñaam nga xam ne mooy seen mag ak ku mel ni santaan ñi ngi ñoom Modja caatu Yoof ak xale yooyu nekk yoofu yépp ñoom gi nañu ànd bokk ndey bokk baay man de loolu laa leen di wax et puis tam loolu laay wax ku nekk kuréel bu mu mën a doon ak fu mu mën a doon parce que ànd bokk ndey bokk baay ci la jàmm nekk ci la lépp xaj ci la yërmande suñu borom ne mais weranteeg sànnente ay xeer ak sànnente ay taraak loolu moom du jur lu dul rek yow mi koy dëkkee def sax bu yàggee nit ñi dañ la jéppi waaw journal ba tamit ñu xamal ne ki nga xam ne mooy idaali ñi ngi taxawal na euh, combat bi nga xam ne combat des espoirs diggante Thielly ak Agogo waa idaale ñu koy nuyu di ko ziar moom tamit parce que daaw la ñëw si làmb jot fi tëgg ay combat ren tamit gis nañ ne ñëwaat na mu mel ni kon mu ngay li la mu defoon daaw yaa ngi dégg parce que agogo ku ne xam na ko école Birahim Ndiaye xale bu mën a bëre yaakaar naa daaw bëri na ñaari komba daan benn am am benn ak benn defet ci Nokia. waaye itam defe naa mook Nokia yomb loon ci Nokia doonte Nokia daan na ko waaye metti woon na trop ci moom kera ki nga xam ne mooy Thierry tamit xale la boo xam ne ni muy di dem waaye nag lamba mel noonu dafa dekki am ay kii taxaw tuuti mais itam neex la kon idaali ñu koy nuyu di ko ziar di ko loolu mu tëgg yàlla na ci am ndam waaw ku mel ni sëñ Modou itam yaakaar naa tëgg na combat espoir moom tamit waaw moo lay wan nekk daal fi nekk nii moom làmb ji moom promoteur yi ñu ngi taxawal combat yi nga xam ne jàpp nañ ne war naa taxaw fi mu nekk nii. Babacar ñu jeexalee ci journal sunu làmb ak information yi nga xam ne moom la ñuy def ci bilan yi fan yi nee nañu écurie Diamaguène Sicap Mbao am na 11 victoires cinq défaites nañ daal lu baax la ci saison bi nu génn. waaw loolu moom baax na trop trop parce que li tax mu baax mooy écurie yooyu nekk guñu écurie yu fi yàgg yu mel ni ay écurie waalo. ay écurie Pikine yi ñu xamoon wala écurie Fass yu mel ni ki noonu ñu écurie yooyu yeggaguñu foofu ci yàggaay fi kon nag su ñu ñëwee ñoom ci at yi di produire ay xale xale yooyu di dem ba tey def résultat yu positif yi yaakaar naa kon ñoom am nañu mérite muy waa jàmm gën si gàmbaaw vraiment daal seen bilan boobu moom mérite la bu baax a baax te tam yaa dañ leen di wax rek félicité leen et puis gën leen a wax ñu gën a liggéey parce que mbir mi moom amul secret liggéey la rek soo liggéeyee moom def li nga war a def ah li ci des nag suñu borom bi moom moo ko yor kon ñu ngi leen di féliciter ci loolu rawatina ku mel ni seen président yaakaar naa Ndik Fall ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñoo leen di encadrer yépp am na fa ay xale yoo xam ne vraiment buñ leen gungee sax dinañu gën a dem xale yu mel ni ñoom Liss Ndiago ay mbay xaad ak yeneen xale xam ne ñu ngi ci kër bi bu a baax Babacar suñu jógee sunu lamb nag nu dem fii journal bi nga xam ne mooy record ak sunu confrère boobu di Abou Nour te nag dafa indi euh, benn information neen daal écurie Serge euh, wu lutte bu Kaolack daal mi ngi bëgg xar ñaar parce que yenn si dirigeant yi ñoom nag suulal ni ma maanaam wax nañu mais bëgguñu feeñ ne ñu daal bëgg nañu président bi bi nga xam ne mooy Bira Sène na fa jógee ndax écurie euh, ndax Serge ba xaalis bi fa nekk lépp lu fa am si xaalis rek président moo jël daal dugal si biir poche am dafa jaawale keesu Serge bi ak keesu ak poche boppam daal ah waaw loolu day amul amul bu dee lu am la. war moom nag président na loolu. waaw parce que gis nañ ko mu weddi lool ci record bu dee lu am la comme noonu ñooñu ñu ko waxee yaakaar naa gënul ndax bu ñu la dénkee moom loo xam ne ni dañ la koo dénk te du say yëf waroo koo li nga moom bu dee am na xamuñu nag ndax am ndax moom ma nga xam ne mooy Birame Sène jàpp na ne loolu wax ay waxu caaxaan la nekkul wax ju taxaw waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy wax tamit am na man lu ma leen di wax rek mbir boo ci bokkee te gis na ni muy doxe neexul booy wax jarul ngay laaxatu di nëbb sa tur parce que ci nga bokk ci ñu koy doxal kon boo génnal ne kat lii su ko defee ñu mën a xam ne yow yaa wax li nga indi yow li tax nga ne lii doy ma wala wala tax nga ne cent francs yi dafa réer dugg fii fii pour nga mën ko justifier yaa ngi dégg loolu defe naa dina bokk ci lii tax mbir mi defar ko yomb waaye nag damay wax si ndey ku ma faal mais bu kenn waxee sama tur moom man Babacar moom vraiment loolu xaw na ma jaaxal quoi mais lu ñu mën di dégg rek mooy comme la ma waxoon sànq yoof rek laay waxaat nañu waxtaan rek suñu waxtaanee ku ci ne xam nga sa ay responsabilité la nga yàq bu dee yàq nga xam nga ko la nga war a defar bu dee yàq war a defar xam nga ko nga jéem a ngeen waxante li réalité dëgg yi waxante ko fexe ànd avancé pour que làmbi Kaolack mën a gën a avancé jëm kanam d'autant plus sax Kaolack moo jëloon troisième ci drapeau chef d'état bi nu génn euh, Babacar suñ suñ jógee nag record nañuy dem si Leewtoo TV Leewtoo TV dafa sekk waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ni mooy Bécaye Bécaye ñëwaan na si diggante combat Eumeu Sène nga xam ne mooy Balla Gaye moom euh, na ko nee na communication bi mu defoon si com si si digganteem ak Balla Gaye baaxul donc combat troisième combat lu mën a nekk la Babacar waaw moom daa jàpp ne Balla dafa juum ci moo Eumeu dafa juum ci communication bi mu ne dootul bëre ki nga xam ne moo di ki nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 waa Père Bécaye noonu la gisee waaw xëy na nag moom fi muy waxee mooy xay na buy wax lool ci cadre sport bi lay waxee yaa ngi dégg parce que sport moo tëddee moom na ne ñoom dañuy liggéey te ay mbër lañu kon kenn warul xëy taxan dootuma bëreeg sama morom parce que mën nga ko wax réalité yi demee ko fi Père Bécaye foofu lay waxe Eumeu Sène itam magum jëmm la magum yàllaam jëmm la boo xam ne kilifa la yore këram ak famille ak léppam xëy na moom ma taxaw ne dootul bëre ak Balla xay na itam am na fu mu ko teg waaye bu père Bekaay waxee moom ci cadre sport lay waxee wax bëri na loo xam ne wax na ko foofu ci côté même erreur bi nga xam ne jàpp na ne Ama def na ko daaw ci digganteem ak Siteu parce que kase 70 millions ñu proposé la ko ndey Gumba Fall nga rejeté ko bëri na daal yu ba xam ne nii wax na ko père Bekaay ñu koy nuyuwaat di ko ziar di wax ne moom tamit defe naa su waxee si làmb rek intérêt yi làmb moo koy tax di wax à chaque fois saa bu génnee di wax su fekkee yéen mbër yi ni ngi wut ay combat ki nga xam daal mooy buur bi euh, muy Modou Lo moom daal mi ngi si ay vacances su jógee Espagne bu mujj demoon na fi Espagne vacances ñëwoon na delluwaat na nee nañu instant bi nii si leewtoo point net nee nañu mi ngi mi ngi Dubaay. ah waaw kon de xanaa Modou temps yi moom waaw wax na dëgg de comme mooy buur bi fi mu nekk nii te bëri na ñaari combat dem na dëkk buur waaw <laughs> dem dëkk waaw déggoon nañ ko fi Barcelone tey ñu jàngat ci leen tuuma ne mu nga Dubaay ah loolu moom maanaam bu ko neexee dem ca dëkku ruwaaya waaw xëy na daa dem pour def ay shopping ak yu mel ni ki noonu ah wala dal waaw jënd ay oram ak yooyu parce que moom bokkul ak man góori ñaari soxna la moom moom góor yàlla moom borom fit la ñaar la yor kon Modou daal voyage am yooyu ak lu ci mën mënti xew rek yàlla na ko si yàlla defal jàmm mu dellusiwaat Sénégal ci jàmm parce que itam c'est le des arènes et tamit vraiment ñu koy nuyuwaat di nuyu encadrement bi yëpp daal di nuyu tamit mbër yëpp. comme ni nga koy waxee rek comme que boo góor boo góor yàlla boo gis ñaar jabar lay am kon ba war ngeen góorgóorlu ñi nga xam ni amagunu amagunu <laughs> benn ba am ñaar dañuy góorgóor ba am ñaar jabar si kàddu yi leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu aussi dadigee naa ko moom te war na def gaaw lu gaaw comme que góor yàlla Ababacar ah, ah, <laughs> di nuyu di nuyu Astani Ndeye DG Brahma depuis Italie chéri Khadija Diallo di nuyu samay bébé Fallou bébé ya ak ki nga xam ni mooy euh, junior euh, Eva Diallo yaa ngi si biir Babacar. waa du mën a ñàkk ah, comme ni nga ko waxee rek kon dari na def lu gaaw rapide waaye itam suma caméraman bi yàgg maar moom xam naa fa yii dinaa ko ci génne xam nga wala mu takk borom ginaar yi rek ki ñu yëndil fii ginaar yu mool yi yàgg maar loolu du mën a ñàkk. ak ji ak ji Moussa itam moom it war naa góorgóorlu parce que Leewtoo daa xaw bëri ay célibataire am na fi koo xam ne nag moom moom du moom yor na soxna da doon tudd tey muy kitaan ñu koy ñaanal yàlla bébé boobu yàlla na yàlla def def ko magum lislaam ak mag bi nga xam ne dinañ dem ba ëllëg ñu di ko takkal sëy muy sëy waaw ñu koy muur muy sëy kon kitaan ñu ngi lay nuy di nuyu soxna si di wax ne tamit kontaan nañ ci sa wayjur bu jigéen moom nga tudde sa doom di ñaanal sa wayjur bu jigéen yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko mais di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre ñëpp rawatina ku mel ni maire Bambey Gana Mbaye daf ñu suivre di ñu bàyyi xel ak docteur Macoumba Diouf maire Lat Mbeng ñoo ñëpp di suñu ay xarit di suñu ay soppe ak sama Pape Sène di nuyu ñëpp ñoom Khady Rose ñoom tuuti yaay Sarr madame saar duma ko fàtte ñoom Fatma Fall ñoom Mbacke Kebe itali Ndongo Fall xam nga gaa yëpp Cissé ca Brésil duñ ko fàtte di nuyu képp ki nga xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV à la moom monde Awa Diop nuyu naa ko Woulimata Diène bu Fass moom tamit duma ko fàtte Aïda moom itam si maquillage bi du ma ko fàtte Aïssatou Faye sama rakk maa ngi koy nuyu di ko ziar madame Nia xam nga di nuyu képp nga xam ne yaa ngi suivre di nuyu tamit suñu ay kilifa encore une fois rek Pape Thialis Faye ak nga xam ne mooy jaw ak groupe Leewtoo bi yépp di ñaan daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm sama yaay ji ci Louga itam du ma ko fàtte muy soxnaane Cheikh Bintou Fall. te nag yaa ngi si biir bu suba incha allah.